waxoon naa ko bul demandé. dafa daw moom moo demandé. may leen ñu c'est quelques minutes wax ji soriwul li muy woote jaru ko mais lii wane na ni que lii wane na ni que respecté wul suñu justice su réew. lii wane na ni que respecté wul magistrat yi. lii wane na ni que mënta jiite benn sénégalais. parce que jàpp naa ni kuy ut ay kuréel kuy ut am réew bu.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

pour ma top ak mom egg bam fa mu mais li firndel ci ni que lepp lu mu yàq suba ba ngone jot ci internet bi la koy jëlee merci beaucoup. ngeen euh, yi nga euh, merci beaucoup. ñu dem ñu dem di jël Seydou ni ma téel ko téel ko man damaa téye Seydou